Tivaouane daal ay jeunes yu bëgg course ñoo fa nekk doon ay jàmbaar réussir li nga xamante ni mooy course parce que nekkuloon loo xamante ni nii lu yomb la loolu nag dañ naan Tivaouane gi yëpp ndax mënuñoo lim ndax buñ limee rek mën na juum waaye tey jii nii junior Mbengue tey oh yi jóg nañu le départ oo dane ki nga xamante ni moo génn mooy sans doute laaw laaw moo génn bu professeur Sakhir Thiam laaw génn na Thibatin Fabrice Wyatt Fabrice Hunter waaye ki nga xamante nii mooy Dalinkoor moo ñëw en deuxième position en troisième position le numéro 12 en quatrième position Amine moo fa nekk toog ci arras bi waaye ki nga xamante ni mooy Kasumay Maam Ngañ dafa teel a sikki bu fasik daal di ñëw cinquième position pointé wu waaye ki nga xamante ni mooy mooy Ngone Latir nekk favori seen biir li ma jaaxal moom dafa xaw a jiital fasik waaye rabaat na carrément dugg seen biir waaye dan doomu dana kër bi moo ñëw en deuxième position ki nga xamante ni nii mooy génn moom mooy laaw tey ji Yamar Gueye moo ko war waaye dan Dalin Koor moo ñëw en deuxième position seen dan Pam ñu ngi avec la casaque mauve et mu ñëw en deuxième position en troisième position kasu mooy moo fa nekk Fall Diop moo ko war waaye ngoonam euh, Maguette Diop ñëw na seen biir tamit maam ngañ waaw jërëjëf góor a boo xoolee ki nga xamante ni moom mooy dalinkoor moom moo génn ñëw si kanam jockey bi ko moom mooy euh, Mbaye Diène Diallo suivi da law Yamar Gueye moom moo ko war troisième nekk Maguette Diop ak euh, adjudant Ndeye Fama mu ngi ci biir groupe bi toog Kasumay Dee mu ngi ci biir groupe bi toog Amine Ouma mu ngi ci biir groupe bi toog Ngoye Latir mu ngi bi jox li nga xamante ni moom mooy deuxième plateau bi gàtt gàtt 10 longueur muy ki nga xamante ni moom mooy Dalinkoor ak ki nga xamante ni moom mooy Law kii Mbaye Diène Diallo moo ko kii ki nga xamante ni moo ko moom mooy Yamar Gaye waaye troisième position nekk fas bi nga xamante ni mooy Maguette Diop attention adjudant teel naa pointé si quatrième position Ndeye Der ak Kasamay toogandoo cinquième position laa leen da sabaa ngi ci ligne bi góor Law romb na laaw génn na waaye dawal nañ le numéro 12 muy Ndeye Fama Der mu ñëw pointé wu waaye ki nga xamante ni moo toog en troisième position mooy fas yi nga xam ne mooy kasu may monté par Farlo Diop par la case rose blanc waaye laaw génn na tourné na journal professeur Sakhi Thiam waaye en deuxième position Ndeye Fama Deen moo fa nekk waaye dawal nañu kasumay dawal nañu kasumay waaye laaw génn na war a casse des tout petit waaye ki nga xamante ni moo nekk en quatrième position moom mooy adjudant waaye dawal nañu ki nga xamante ni nii moom mooy Maguette Diop mu ñëw en cinquième position waaye ki nga xamante ni Mame Ngagne moo génn ba tey moom mooy law tey jii nee naa la gaawaay bi jaaduwul waaye dawal nañu Ndeye Fama Deen mu ñëw dawal nañu Aminou Ouma ci kaw dawal nañu Aminou Ouma ci kaw dawal nañu Aminou kaw Mame Ngagne dawal nañu Aminu Umaca Kaw doomu Teranga doomu ki nga xamante mooy Pasteur biir la par Majavier Marcia Villar Mister Prospector mu génn ci kanam monté par Oumar Sall Diallo suivi de Ndeye Fama Der en troisième position Law quatrième position Kasumay 2 Aminu Uma Tudor Pasteur biir Mojavienne Martiavillaine Mister Prospector mu ngi nii tourné ñëw ci li nga xamante ne mooy 200 mètres waaye ba tey ki nga xamante ni moo ko topp moom mooy fas bi nga xamante ni mooy Ndeye Fama Deen ak ki nga xamante ni moom mooy law Aminou Ouma mu ngi nii génn Ouma Sa Diallo moo ko war Aminou Ouma attention la Médina attention la Médina la Médina ak Bourax Aminou Ouma ba tey moo nekk si kanam Aminou Ouma Pasteur biir Mojavienne Martiavillaine Mister Prospector signé na li nga xamante ni mooy première victoire saison bi monté par Ouma Sa incha allah préparé par ki nga xamante ni Gora Thiam moom mooy Ousmane Dak. tey jii Mame Ngagne boo xoolee Aminul Oumar moom moo raw Dak moo ko indi waaye nag tey jii nii écurie Lamba Fall signé nañ leen seen première victoire ci li nga xamante ni nii moom mooy groupe bi kan moo raw Aminul Oumar doomu Toye moi surtout Bambi kii moom mooy Aminul Oumar kii moo raw Grand Serta kii li nga xamante ne mooy grand prix de la renaissance africaine tey jii kii c' euh, Lamba Far signé seen première euh, euh, réalisation ci li nga xamante ne nii moom mooy groupe kooku mooy Amirou Ouma gis ngeen ko Ousmane Ndak moom moo ko préparé waaye Ousmane Ndak bu préparé fas mu raw première loolu dañ c'est la première fois ndax raw na Gram Selota ci jockey en 1997 avec le jockey avec le cheval la la tête raw Gram Selota comme entraîneur avec le cheval macha macha allah bu Ndiamé Dieye kon Aminul Ouma kon kon ki nga xamante ni mooy Ousmane Ndak nekk na entraîneur boo xamante ni nii entraîneur bu confirmé la. voilà euh, jërëjëf euh, mbokku euh, internautes yi gis ngeen cinquième course du programme Aminul Ouma moom moo ñëw premier deuxième Bourax deuxième autant pour moi Médina troisième Bourax. alors dañuy xaarandi quatrième bi ak cinquième bi ci yeneen i fas yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fa placé. mais gis nga Amine Oma après 11 journées voilà après 10 journées autant pour moi 11 onzième journée il ñëw euh, affiché premier déjà changement de changement de jockey amnati, mais changement d'entraîneur, parce que Père Cheikh Kassé moom moo ko yoroon gis nga ci def ay placé Ousmane Dak, tey jii premier. bi première euh, participation boo xam ne ko ak aminou Oma gis nga mu triomphé diko féliciter mom Ousmane di féliciter aussi tamit. ki nga xamanteni mom moy Omar Bao Junior mam Ngagne ñoom ñep dañu leen di féliciter féliciter Père Moussa Lo